te bu soobee yàlla fii ak une semaine damay waa Sénégal non non bul wax loolu dee ma laaj dégg nga parce que bu dul dara wax naa la ñoo bokk sama papa muy waali te am na yoo xam rus naa di ko dégg ci yow wala nga koy dégg ci man ku ma xam-xam loolu man ay wax di xajuma ci d' accord voilà xaw ma fu ay jour nekk xaw ma fu ñu nekkaale man sama liggéey moom ma fi indi su ma paree damay ñibbi ba ci kenn ku nekk boo fi ñëwee ki la fi indi moo la koy jox voilà bu ñuy réeroo boo amul loo xam rek ci man boo ma laajee man naa la wax merci beaucoup. may mais yéen ñëpp gouvernement moo leen yóbbu faa da nga waroon a xam ne Sénégal gii même bu dul man sax ñëpp dañ koy wax maanaam da ngaa waroon a toog bañ a dem Qatar bu dee da ngeen a weex tunq lambar lambar rek cakar cakar rek ay ñoom gin yooyu nekk foofu bamba jee nangam nang yoo xam naa ne góor yóbbuwu la mais bu ma doon yow moom damay toog billaay wóor yàlla man xam naa la bu baax sama xarit nga man loolu du ko.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 plateforme d'information